seen day siir dix mille wax ma lu ñu def rang muy rap ten thousand maata band yi bëri nañ bëri nañ acteur boy génn la Bagdad Vagabond classique of bang bang bang il faut rek seen day siir dix mille wax ma lu ñu def rang muy rap ten thousand maata band yi dana am tey invité boo xam ne invité marque la muy euh, dix mille problème donc euh, man balaa may commencé waxtaan bi ndaxte mu doon présenté fële c'est-à-dire que li mu bëgg xam avant tout euh, wax nga sànq sa tur dëkk muy Mouhamed pourquoi dix mille problème waaw dix mille problème mais comme lu mel nii rek temps bu salte bi ñu war ko jàllale jàllul ko ñu ku nekk bàyyi li war a wax nga wax ko loo war a wax bu ko wax war a wax ñu wax ko dix mille problème benn boo xam ne ni dafa engagé wu si benn concept ka pour doon ambassadeur ba ma quoi ko déggee mooy ko xam ne yaa ngi jëriñ sa gox nga xam ne nit ñi nit ñi di question ñoom mën a duñu wax mais dana amul fu ñu koy waxee ñi amuñu li muy problème benn nit la boo xam ne nii mais comme doomu arama yi dong la rappeur la plus ambassadeur su ma neexoon def comme artiste quoi di génne samay son di paanal si booy su ma neexoon génne wala sama son di tëgg samay soirée di jose di sorote si booy yi di daaj mais comme di ko yeneen pone yi di defee tu mais man maa tànn boobu concept boobu slogan dix mille du tey na quoi mais am am na beneen dix mille problème fi nekkoon waaw kooku dégg naa say jamono mais waaw mooy loolu daal gëj ko dégg mais xamu si lan la nekk. na nangu bës moom quoi. non du nangu bës bi job la ndax sa travail paye gis nga euh, affaire yi bu nu naxante quoi bu nu tegante xel nanu wax quoi pour jëriñ suñu société même boo nekkee milliardaire yow jëriñoo si wala amuloo société ba jëriñ yow tu n'es pas intéressant dans un pays waag waa ok donc wax nga fi léegi maanaam bu nee dimi problème si rapport <coughs> si kaw seen bi léegi non maa ngi sama album maa ngi maa ngi si maa ngi si. Ah? maa ngi waajal sama album maa ngi si benn label. maa ngi si benn label quoi maa ngi liggéey ak ñoom xoolal Pacha maa ngi koy nuyu bu baax ak en passage di nuyu xoolal kii Nis quoi. di nuyu aussi tamit ko sama manager. maa ngi si label ba temps sax am na lu ma lancé nii benn single rek laa lancé nii benn futuri boo xam ne maa ko jóg benn gars bu tudd Weta Jolaas. Mhm. mais teewul maa ngi sama créé album. mais teewul tam maa ngi fexe toujours li nga xam te ni nit ñi war na ko mën a expliquer ñu expliquer ko nit ñi comme tey mënuma gëm nga dëkk Ndar nekk saint bi ku ne am nga foo jóge quoi man Dakar la nekk Médina ko li ma am na ñoom la quoi Médina quoi ñoom ma defal lépp quoi respect à tous les Médinois tu vois di ko parce que tamit lépp ñoom la quoi mais ñëw naa fi ki loo xam ne ni ça dérange tout le monde. non man loolu dañ si ñëw. mais ça dama bëggoon balaa ñuy si loolu noonu puisque xam nga tey. dama bëggoon ñu def ko benn ci genre xam nga tey bu nee dimi problème rek comme ni mu la ko waxee léegi léegi dañuy naan rapport la xam nga loolu tax nga ñëw fii ba am lu la metti nga koy wax yëpp dañ siy ñëw mais tey danaa gis ma nekkoon ci scène bi di toj mais tey dimi problème gisuñ ko ci scène bi dimi problème wooyetul ndax dafa am problème ak rapport yi ndax dimi problème dafa am problème moyen pour rap c'est-à-dire que foofu laa bëgg dëkk fa lu tax léegi ñëw non loolu la réponse simple loolu benn diggante la woon benn diggante la woon benn euh, contre temps la woon te teew sans boobu ñu ngi si leneen di jóg quoi affaire bi rap kese quoi affaire bi nekkul téye maa bi rek kese quoi di tànqal nit ñi affaire bi da nga war da nga war a am leneen loo doon comme benn dix mille problème. bëri problème quoi. non du bëri problème ba quartier bu nekk da nga war a am benn dix mille problème benn nit koo xam ne da ngay jëriñ société bi. mais xam nga tey boo nee carrément que rab bi du wax kese tu vois du du rab kese dafa am lu si laxasu loo xam ne ko war a génn muy dévoile les maux de la société n'est-ce pas loolu la. Mm-hmm. donc tey tey bu nee dix mille problème gars yi dañ naan est-ce que dix mille problème boobu turu problème boobu ñuy wax est-ce que tey war na mën a taxaw di sensibiliser jeunes yi ak problème yi mu jël yëpp def ko dix mille en teg ko ci kawam loolu xam nga yaa philosophie

donc tax lu tax nga ñëwaat ndar toog benn moment bu yàgg nga daal di ñëwaat ndar non man dama fi ñëw chaque voyage dama fiy ñëw dem sama yoon chaque fois dama fiy ñëw def samay interview mm-hmm. wax ak maire bi mm-hmm. mais damay xool chaque jour même jour même chaque année même chose quoi mm-hmm. ndar bougé wul avancé wul ndar puusul ndar paasul ndar demul ndar dëkkul ndar yaa rien léegi nag loolu nag li fi nekk nag loolu dafa am ay problème yoo xam ne mu ngi société bi. mu nga bëgg wax. de un. de un ki ma njëkk attaque di expliqué mooy seen gouverneur bi sunu gouverneur bi fi nekk parce que boo xoolee xool gouverneur bi dafa bloqué maanaam xool que jeunesse su Ndar Géej dañ leen censuré dañ leen maanaam dañu xat quoi fii y a rien booy yi amuñu xool fu nu fooyee booy yi amuñu fu nu baalee non da may déglu am nga place publique ñëw benn mbaa jaaxa toog ne nii ak ba dëkk bu koy dundal il faut jeunesse bi ñu am loo xam ne mën na si yëngatu ko ay business affaire yu dox mais ñëpp daw noonu parce que am nga tàggaay daw amuñu dara dañ si loo xam ne ni wax mu ngi Dakar nekk fa te fii dëkk maanaam surtout mu ngi ëpp surtout wasi milliardaires yi xam ne ñu ngi dëkk à Saint-Louis à niveau de Saint-Louis nekk ay artistes ñu xam leen si réew mi quoi nekk à Saint-Louis fii nii tu vois wa te ñoom ñu ngi tëdd Dakar toog wa ku dee ñu ni la caaka njaay moo tax man bàyyi xool dem naa gën a wax ak paa dana am fulla baax képp ko xam yaa ngi fi dëkk mosoo nen ne ko si ndar géej dama leen ko ñaan bu deewee nañu delloo néew bi fu mu nekkoon mais léegi mais léegi sa problème ak ak ak Mansour ba tey fu nu toog rek dégg ngay wax sa Mansour Mansour ba dégg nañu avant ngay ñëw def nga benn sortie comme quoi que na war a ñëw xam nga na problème ak Mansour wala dafa am dafa am léegi non Mansour Faye amuñu problème mais Mansour moo liggéeyul ah mais mooy si yoon yi gisoo léegi yoon yi da nga bu njëkk bu ne gox baa ci bay yoon yi bu tawee léegi bàyyi bi doo am xam yoon lan la lii rek dafa lii rek ay saaga ndey la xam yoon ay lan la yoon ay tëli ay tëli yoo xam ne amul rigol amul da jëw ndem amul si ay tiwo continuer a maanaam dër ndox mi bu ñëwee voilà fan lay jaar mais bu njëkk bu njëkk xam nga xam nga gën a bon amul bu njëkk monde mi day évoluer nan évoluer ànd ak adduna bi quoi mhm. mais xoola ndax lii jaadu na lii lii nga koy dund fii di ko dund nga xoolal gaal yi nu ñu fay bi tey tey bi mais lii est-ce que du population gox mbaat ñoo war a taxaw mu def lépp mais ana pôle fii mais xoolal fii ndax gis nga fi pôle mbalit pourtant Dakar dafa gën Saint-Louis nan am ful nan gëm seen bopp quoi li gars def na ko def Dakar du Dakar rek du Sénégal Dakar dana am fulla Dakar am tax ma gëm leen dana am fulla am fayda mais ndar nag fulla moom rien ku ñëw yab leen lu waay neex def maire bi ñoo ko fi fal mais Cheikh Bamba Dièye bu fi nekk est-ce que dëkk bi ni la meloon sa waay man fii mais mais mais mais da may déglu ma expliqué baax Mansour Faye moom war na sax ruus dëkk bi mel nii te fii nga gisee nga ba demee ale Pikine yi Pikine moo gën a salte si àdduna Pikine waa Pikine dundu nooy yi ñun xam ngeen li ma ne wax bu baax benn diggante boo xam te ne espace bu gudd la laas lépp mbalit ba pare Mansour Faye jël mbalit di këpp ko foofu wala nit ñi di dund ay contrevent boo demee Pikine benn côté boo yëfu nekk yëpp asma ndax maladie yow nga nekk benn milliardaire minti milliardaire waaw Marième Faye juddoo Ndar ñu koy ndamoo te nguur yàggul nga war liggéey sa réew ngay xoole di wër si dëkk bi di jaay jomba ñaaw di maye li ngay maye c'est bien mais bay sa wér tànk la commencé mais mais mais tey mais tey ah xam nga tey noonu waxoon dëgg nag euh, acte bi nga def nii dama koy saluer la fekk nga jóge tey Dakar nga na nga ñëw pour que ñu mën a xool na la war a liggéeye Ndar man dinaa liggéey yow man dinaa ma de dinaa liggéeyal dinaa liggéey ak ñeneen ak ñeneen su suba am na ñu war a jógee Dakar pour loolu mm-hmm. at xool te te loolu man lu ma dox la wa xaar ma si politicien wa xaar ma si ma sàmm man boobu ah. damay engagé wu man ma volontaire wu man lu waaye def fi mu nekk fi ndar mu weng mm-hmm. moom wan ko état mu gis yoo xam ne lii mooy feebaru lii lii na fi jógee nit ñi am jàmm quoi tamit quoi ok léegi léegi fa laay waxee ak yow nga xam ne moom la état war a def pour jàppale population bi ci salte beeg ko ah, mi ngi nii yëpp ko

parce que yow gisoo fi benn pôle ñaari pôle mbari de un léegi waa quartier bu ñu génnee léegi waa bu ñu balee lii léegi pourquoi fan na koy def pourtant quartier bu nekk am na ay xoola ba fii rek am na ay cinq non ay sept ASC xaw bu nekk boo ko joxee xool ko cinq cent mille mu bale foofu lépp c'est simple quoi ñoom maire bi ñoom ñi ni jël ñuy joob liggéeyuñu tax ñoo dañu réew dañu si mbedd si mbedd di taxawaaloo di plané ak ñii di whatsapp ak ñii di snap ak liggéeyuñu mbali mii du loolu moo ko du ay caaxaan ak fi jëlee mooy li am fii moo am Pikine moo am Sor moo am Jaminaar moo am Dakar moo am fenn dëkk bi si boppam moo salté. léegi yow ban ban ban ban ban solution ngay joxe pour que ñu mën fi jëlee lii léegi yow est-ce que jotul nga jóg dem ba ci maire toog benn jeune Saint-Louisien responsable ngeen toog ngeen waxtaan. non loolu la quoi. moom moom li ko war la war a def. non loolu woyaan la. non damay déglu quoi non damay déglu quoi. foofu d'accord ak yow non da ngay wax ñi nga xam ne ñooy Samba Mbayaan waaw man du ma ñëwee fii nag damay dem si nem bi waaw dama ngi def lii moom moo war a am xel xool fan lay jaar na gis ASC yi man na dem si ASC nekk si benn kër mu jox benn cinq cent nga xool dëkk bi léppay set saako ba amul dara du taxaw ñoom ñooy ay milliards na nga jox ni ngi ni ngi liggéey mais rang yow waroo soo sa daal dem ba ci maire maire bi toog waxtaan ak waxtaan ak moom en tant que quelqu'un bi nga xam ne porte de voix nga en tant que xoolal de voix li ma war a wax maa ngi ko si télé yi man du ma Guy Marius Sagna man du ma Assane Diouf man du ma wax Fou Malade dix mille problème dix mille dix mille waa problème la man dama ma xool ki philosophie kenn sama philosophie laa demee ak sama xel ak li xam ne yàlla moo ko wax ak li wax su ak doomu aadama yi bokkuma si benn mouvement sama kere laa nekk sama job mooy lool man ngi si doomu aadama je suis là pour le badoola Mansour Faye li ma koy wax wax naa ko maintes fois fii ñoo yàgg naa fi taxaw fi dafay émission di wax ak Mansour Faye Mansour Faye nangu ma dégg Mansour Faye wax naa Mansour Faye bëccëg wax Mansour Faye suba wax Mansour Faye ngoon Mansour Faye mel na ku ma déggul tu vois kon moom lii moo ko intéressé wul. est-ce que dégg na la. yow kii yow kii boo ko saaga bu saanu jësi la. bu saay nag ma gis noonu la wax rek ma gis Sall suba boo ko saaga fanaan. Assane Diouf ak nii dafa saaga su ko doon ko jël si lu waaye wax ñu ngi koy dégg état bi. mais foog nga saaga lu waaye wax moo tax ñenn ñi foog ngay teppi wala ngay xóox wala ngay jumbo wala nga xorom pole wala nga Dakar wala nga ñambaan pour ñu mën la dégg. wax naa la ko sànq ñii taat nañuy déggee ñii nopp na ñi ay mbéj ñii dégg conseil ni yàlla yàlla moo def noonu demande xam nga dëgër ndayu bopp Sénégal si boppam moom moo dëgër ndayu bopp man lu leer laa la wax ni ma. waaw mais mais mais tey am nga tey bu ñu gisee tey benn 10 problème bu ñëw ndar bien vrai que ndar la dëkk mais tey am na ñoo xam boo leen ne 10 problème ndar la dëkk naan noo dëkkul ndar. parce que géew fi. ah parce que géew fi. mais est léegi tey loolu bu amee nga bëgg jug tey nga ne xeexal ndar est ce que ñu am ñu topp sa ginnaaw te de. man mosuma ñëw ma ñëw fii te représenté ma ba muy image yi si internet bi man du ma fenkat li ma def laa lay wax soxla ma ndeyu kenn dum bu ma kenn dimbali ndeyam soxla ma ndimbalu ndeyu kenn ndimbalu yàlla laa soxla ak jaam yi baadoo lay fàqmaan yi pauvre yi. léegi yow la nga gis ni léegi moom def comme solution léegi. solution xam mooy lan ñu nekk Dakar comme li may def yàlla may man sama làmmiñ am sama baat mënu ma ludul na ko dénoncé mënu ma ludul jàllale mënu ma ludul wax li fi nekk parce que damay dox dëkk bi ni naa ma bàyyi 10 000 yow waxee gars yi dégg si lii ay mère di ko wax ay pa di ko wax dama man loolu moy sama liggéey dama koy dénoncé ñom ñima ma fi nek fi fii yàgga nday téye xaalis nday réew mi diko lek ñaata ñaata fi nek ñaata ñaata mais yow ñaata concert lañ fi teg fi indi fi artiste yi xaw ma mbalax maa ni wax fay la ñaata million ay 40 millions waaw millions yooyu noonu boo ko supposé dëkk bi dëkk bi set affaire bi amul li quoi ñom ñu yor moyen yor xaalis ñu génn xaaliss jox population bi jox ASC e yi mais bu ñu xaar ba élection ñëw ba nu suñu papier suñu yaay dugg leen si biis sa carte mooy fal bu la kenn biis sakk suñu milliard bërëm penn ginaar moo tax cin bu naree neex su bëxee dafay xeeñ fas lekk mboq gétt gaa ngi xeeñ dafa gën a xasaw gisaguñu tous Macky la ni lu ñu ngi baado tous comme ni ma toogee si baado tous bi

te gars yi ñu ngi gis liggéey bi ku neex na nga toog sa coin di pound say pound quoi. mais tamit jotul tamit ñu def benn genre euh, yéen ñi nga xam ne nekk ndax surtout artistes yi ngeen dajaloo gën a jàppale nga xam ne nekk ay artistes nekk biir Saint-Louis. non du ma du ma nëbb na rek man waa pare gu ma pour loolu quoi. xam laa pare man. Mm. xam pare. Mm. jóg pour Saint-Louis set. te ku li may def nga def ko. loolu laa soxla quoi amul ay def benn mouvement ànd nii. bu nga ñii di gis seen bopp ñii di gis seen bopp ku mën nga jóg nga participer ku mën nga gàddu sa saak dem town galéré ko dund si underground bi galéré ko xool noo amee dara noo avancé pour sa suba nga jëriñ sa réew nga ñu nekk États-Unis ay Sénégal lañu ñu nekk Allemagne ay Sénégal lañu am na ñoo xam ne ñu ngi fi seer yi parce que Dakar nañ dëkk am ñoo ñu ngi Dakar te fii nañ dëkk monde mi échange la Niki ak fo a dem da ngay gëstu ji xam-xam motax xam-xam dem fi ba Chine. saint ñoo bëgg a lu yombu fi la ngay deuluma rek fi yaay ak ndax ndax bi am fi joxe dépasse courant do fay ndox lu ñew nga lekk dem si biir kër gi tankal day nit ñi répéter ak de si vous parce que fi dafa si côté hip hop. déjà ñom respecté saint ay festival jazz ay payam ans waaye yow fan lay lii waaye mais du yéen ñi nga xam ne acteurs yi yéen a war a ñëwaat. joobaat loolu ñu li ñuy joob da nga koy joobe ak si feneen si feneen. joobe ay joobe ay Dakar joobe ay Europe. mais pourquoi Saint-Louis. fii ñoom du kenn mënu du kenn mënu si a dimbale. mais mais mais mais nga jug nga dem. mais dama tax ma xar yu wa dama tax tey waa nga may dégg wa dem moo tax tey waa tey waa a invité ma yow tey ñaata wa dem moo tax nga seeti ma. te am na leneen du war a ñëwaat a leneen ak leneen bu jotee ñu def ko a bi xam na ñoo ko sa taatu teg tu sa taatu gàlle scène yi hip hop scène yi muy xool ki festival jazz yi de la musique yi am Dakar ba concert yi mu yaatoo si culture si culture internationale ndar daf fi dee ndar benn centre culture xool France moo fi nekk pour affaire musique rappeurs yi seen biir ñoo yëy man waa maa yëy seey keneen ak keneen seey wa Fata moo njëkk a seey moo njëkk a seey waa Massa Cris yi kayit yi seey keneen ak keneen seey ay directeur ay ministre nekk fi juddoo ndar yor ay milliards seey ba ku si dee ñu ne la ndar. man sax man sax man sax man man man ñu ngi may dégg te man danaa volonté wu dinaa engagé wu wax si ndar man lu ma si góobee gar lu ma dal ma jaamu si yàlla ndax ma imiru illaa la ya yaabudullah réew rek boo fa dëkkul nekkoo fa doo xam la fay nekk man su ma nekkee Dakar wax damay xam li may wax su ma nekkee Medina di expliqué di représenté. te fekk ma xam lam fay wax maîtriser ko man naa laa xam ak Saint-Louis xaw ma feneen wër naa dëkk yëpp nag jaar naa ci dëkku naar yi dugg naa si kaso yi tu vois naa dem naa si géej gi maanaam saxaar dama rot ba naaw xam naa géej gi xam naa li am fii xam naa gaalu mbaali dama yàgg dugg ci gaal yi ci gaal yi di si liggéey mu may fay di ma nar moom ay mbir ci biir fii li ñu fa a déclenché dafa bëri léegi léegi léegi tey ah gis tey sa sa mbokk artistes yi ñu bëri tey boo demee Dakar ñuy créé comme lu si mel tey ñoom ñu ngi xeexal seen askan mais mosul gis tey euh, nga nekk seen ginnaaw lan la lu xew. non parce ñoom euh, suñu combat yi bokkul quoi. ah bon ñoom li ñuy kaas seen bopp la quoi. ah non ñoom li ñuy kaas pour réew mi la comme ni nga ñëwee fii kaas yi. pour loolu mu gis waaw loolu mu ah? gis quoi man bëgguma sax sax seen sax si genre yooyu quoi. xaaral dafa am lu la seen biir. non rien man maa bëgg di avancer rek quoi. pas tegu si benn groupe rek groupe bii groupe yee man groupe bii rek mooy loolu. Epta jàmbaaroon de. club ah. Mbulo bu ko wax si ñoom quoi. donc 10 ko wax nga léegi-léegi yi jàll si gaa léegi yooyu noonu est-ce que tey jot tey sa mbokku mool yi nga xam ne tey bu dara xewee parfois ñu jug taal mbedd bi fii yàq bagage yi est-ce que tamit ñi ñi ñi mën leen sensibiliser ba bu dara amatee ñu toog xool nga ko waxtaanee liggéeyanti solution bi bañ a yàq yàq yu bëri yi nii. gis loolu wax doon dara kat loolu dëkk yëpp la Dakar ñoo dàq taal foofu <coughs> ñoo dàq gere foofu parce xam nga politicien moo dëgër nday bopp am na boo ko bëggee faa noo ñëwee noo defee gars yi da ngay wax du la dégg mais nga taal ñu dégg la. est-ce que taal solution. waaw mais xool université yi nii président Macky Sall bu ñëwee wala lu gars yi def sànni ay xeer Dakar ñaata lieu na fa taal parce que waa Dakar ñoo ñu gën bëgg nga xaat quoi nit ñi xaat quoi wala ñun ay dooméram noonu léegi quoi wala Dakar rek mooy Sénégal di la vérité li nee na ko wax quoi kaas. du la sax déglu du la lijjanti. man daa nga gis solution quoi. wax ma bu kenn taal. Mhm. dama ne dëkk bi ñëppay taal dëkk bi boo li met bu ñu mënee kaas li sottiwul ñu taal dëkk bi loolu def loolu moo am fépp gisante ba te loolu wa politicien ñoo ñu ko jàngal. Mhm. man dama yàgg ci politicien yàgg di campagne am yàgg taal pono. Mhm. ñoom ñooy def loolu ñun ñoo la fekk nga xonet jox la benn cent mille benn pono cinquante mille benn pono def loolu nit ñi fii kenn ñàkkul ah, ñoom ñoo yàq nit ñi

من قسة الله وتكلم سارو ونضربها للناس لعلك من رفاقهم يلا مو قصه فران سما باي بندكو تمنكو بند سما ياي بندكو منكو بند يلا موكو بند نضربها للناس لعلك من رفاقهم وتاي لول ديف مباس مي ميرو يلا لا لو ام لا مي نانو ماني نيغي جام تامي كو بوني امبوزي نيت ني اي ñom maskini imposé nit ñi ñom wonu saxar ñom ñoo wara génn ay millions jënd ay masque fekk benn bayaal benn terrain groupe ñu jox leen ay masque tu vois nañu ko commencé def ah? non ñu ngi koy def mais yaatuwul fii de am fi gisuma ko fii mais est-ce que yow jënd nga ay masque jox te pourtant rak jabaru maam ngor wala xaw ma bu député boobu noonu xaw ma fàccaam la xaw ma ñoo bokk benn kon fii mais maam ngor moom ko fi nga xamul loolu fàccaam mu ngi fii APR la te député la woon xam nga ay ñeneen ñeneen ñu fi ay kilifa mhm. mais ñoom ñoo war a génne ndaw yu seen mën def ko si dëkk bi waa dëkk bi nag yoroonu dëj doon dem yoroonu ko ba koy def bu ku ñuy sarax ngay warax yow na ngay génnee ndayu sarax tamit balaa ngaa laajaa la laax lekk fii kenn dimbalewul kenn ku ne yaa ngi kër kër yi moo li ñu def si seen gaal di dem géej ba tax amuñu jàmm da ngay dem si frontière yi fii gi gis ay balu fetal nii frontière zéro nee na nii fii frontière la ba fii si boppam dafa am base ba salsal dafa am base parce que fii frontière la lu nekk mën na jaar fii te pétrole baa ngi fii ñun dofu naa ah. ñu ngi subee sun temps bu baax ñu fi ñu jàngee. ok màgge fi xam lu fi xew tu vois. ok léegi ban ban ban ban conseil ngay joxe pour corona bi ak jeune ak jeune bi jeune yi ak. corona bi daal sa way mas mi dal sa way mhm. le président Macky Sall xam na la wara expliquer mhm. na may ni ngi jamm ku ne nga jël sa engagement. ñu may ni ngi jamm li ni imposer ni ay ku japp ku takku marché bu la ramasser ni mais kon dëgg mais kon ñëpp la ni ramasse. mo kon di nga ramasse waa dëkk bi yëpp. te tamit bu ñu naxante quoi nanu mel ni ngi jàmm quoi xam nga gis nga euh, xaw ma birgees la xaw ma lu mu tuddati. birgees waaw birgees. li li may ñaan yàlla rek li may ñaan yàlla dama koy bay ak yàlla yal nañu yàlla xool ak fayu si aussi li li si moom si concept bu mu yer ak li mu ak li mu jàppee africain yi moo tax lu gën a bon si àdduna de. Mm-hmm. waa benn secret Afrique boobu. Mm-hmm. ndox mi ñëwee naan nii sax ndoxu puub la xam nga puub. déet waay. yee dañ koy filtré te moitié bi xoolal tool ya moitié bi xoolal nit ñee koy naan gars yi dañ ni rey rek. Eh. ni ko ñuul mooy rey ni ko ñuul te ni ko ñuul mooy njëkk a jàppanday ni ko ñuul jaay ko ay ay ay tubaab tubaab mosul jaay kenn mais ni ko ñuul mooy njëkk a jaay ni ko ñuul. donc lekkal suñu biir quoi. yee les africains Afla Bondi wax na ko ni ko ñuul chaque instant mooy lor ni ko ñuul ba tey boo xoolee xoolee carte bi ak mbas mi di ñàkk benn moyen bu génn fii de mais benn gaan moo lekk ndey xool moyen bi yëpp ah bon kenn encaissé wu dara si quartier bi ah. nii saako ceeb mi dóor ñu affaire bu yéeme de te Dakar ñëpp encaissé nañu ah ñenn ñu su bëri ñu su bëri encaissé nañu xool ay mooy sa et mais fii benn gaan benn nit mooy utiliser waa koñ bi yëpp yee waagu waa naa ah. comme loolu ah. yes léegi yow nag après dinañ ko si wax léegi mais li ma si amal gën a amal importance mm-hmm. mooy jeel bi ak mbalim ba muy stade Assane Diouf boobu noonu mm-hmm. yéen a naan station d'urgence sax waaw mbëri suñu jox xoolal mbëri loolu noonu waaw loolu mënoon na si jël liggéey si waa kaso bi parce que 100 mètres bu la waxee ni ñi dañu fay dundee ba bay si fi la bonee parce que néeg yi am na ay ay ñett téeméer junni at yàgg na dafa yàgg quoi muy 400 mètres tamit ay 1127 dafa yàgg loolu moom yàgg loolu moom ba pare ba pare même boo demee fii à Saint mhm. ñetti jeune yëpp ngi si jeel bi ah, boo yëpp a si kaso ya boo yëpp ngi si jeel di ñaan état tamit ah dimbale population bi tamit ah xam nga nous sommes des citoyens sénégalais mm-hmm. gars yi génnuñu Sénégal quoi génnuñu fii. e wagwan roy tando big up dansal e eh, ten thousand matra from lakhira rang rang muy gaaw na góor quoi gars yi fi nekk naan ay fëlfëlaale rek ay moo wër ay moo caga ay moo nii moo raay moo góor de la mën leen rang muy gaaw na góor waaw léegi looy may Sen e eh, yo maan waagu waan e eh, yaa ngi ndar géej maan waagu waan e eh, Saint-Louis TV la télé Sénégal télé askan bi na gaa yi jàpp si combat bi tamit quoi li ki da ngay feer fi nga nekk right hand on big up dancehall e ten thousand metres from laaxira rang muy Saint-Louis TV kunkang cing cang cung cang yii han hun han jung jang respect et peace and love waagu waan bamba karan maan jaa ngeen jëf am nañu mbégte mbégte gi na amoon nag mooy ñëw seet suñu grand donc non grand jege si man tey moo doon seet si woon tu vois muy muy muy bu baax bu yaatu ba mu ñëwee mu may nu tey invitation bi ñu waxtaan ko ci fulla ci fayda donc gis ngeen jot nañ ci tamit yu ñoo lay jaajëfal di lay remercier bu baax a baax aussi di wax ni rek euh, ñoo lay encouragé baax li nga xam moo la jëlee Dakar indi la fii gërëm mbalit doon donc baax a baax donc Sahel TV comme ni nga ko ñëpp lay ñëpp lay dalal donc euh, fekk ay fan yu néew allah bu defee di gërëm Tafa Diagne bi nekkoon ci ginnaaw euh, ak sama waaji réalisateur bi comment dire Bilal Doucouré ak e Bamba Kalaman e Wagwan e dernier message Mansour Faye Mansour Faye dernier message te yàlla moo tax Mansour Faye wax naa nag waxaat waxaat waxaat naa la bëgguma la dépasser respect à toi Mansour li la war def ko Marème Faye tam li la war nga def ko fay leen Sénégal seen bor rang muy gaaw